salaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala amma baad bokki jullit yi ñoo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di julli ci yonentam alayhi salaatu wassalaam di dénk sunu bopp di leen dénk ragal yàlla ak jafandu ci diineem ji mu di sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw loolu ñu xam ne bokk na ci xéewal yi sunu borom tabaraka wa taala xéewal jaam ñi te tuddal ko boppam xéewaluk dindi ab xiifa ku mar ak xéewalu dindi njàqare ñaari mbir yooyu suñu dañee njàqare su dañee xiif ak mar dañ ma ne ñaar yooyu ñooy fondation dundu doomu aadama ju am ak dal fii ci àdduna ak dund du mën a texe mën a tegu ci aw yoon lu dul dafa mucc ci yaar yooyu ah bunt la bu rëy nag waaye rek li fi xaj danañ ko ci wax ñu tàmbalee ci ne am sécurité ci wàllu dund bi dund bi buñ ko waxee mooy li ngay lekk ak li ngay naan ak fi ngay dëkk ak la ngay sol am na ay sabab yoo xam ne ngir nit ki dundam bi mën a tegu ci aw yoon faaw mu sàmmoonte ak sabab yooyu sabab yi ñaari xaaj la am na ci yoo xam ne yu ñuy jóg di ko def la di ci teg loxo am ci yoo xam ne doonut lu ñuy teg ci loxo di ko gis waaye benn mu tegu ci wàllu pas-pas wala mu tegu ci wàllu defin yi nga xam ne mooy sabab yiñ mën a tudde asbaab maddiya nga xam ne da koy gis di ko laal mën a jóg defi ko te nit ki bu ko defee borom bi tabaraka wa taala man koo baaxee wërsëgu ab dundam tegu ci aw yoon ba ci jiitu moo di nangoo sonn ci liggéey bañ a tàyyal bañ a bayliku nangu wa sonn borom bi tabaraka wa taala soññee na ci nit ki mu kër këri liggéey ngir am dara moo tax mu ne fa ida faraxta fansab su fekkee ne noppi nga ci say jaamu yàlla say julleeg say koor ak yooyu foo noppee rek dellul ca liggéey ba waxaat ne famshu fi manakibiha wa kulu min risqi dox leen ci kaw suuf si xëyal dem ci liggéeyukaay ba muy bureau ba wala muy ca tool ba wala bu laajee tukki sax demal tukki dox leen ci kaw suuf si dem sàkku ji wërsëg waxaat ne fa ida qudiyat salaatu fantashiru soo julleetee ba su julli jeex bu fa toog jógal dem demal liggéey wax borom bi tabaraka wa taala ne moom day moo leen bind wàcce leen fii ci suuf ne leen góor góorgóorlu leen dundal suuf si dund ci wastaamarakum fiha kon saxoo leen jéggalu seen boroom te tuubal ko te xam ne moom kuy nangu ak njéggal la di nangu ak tuub dafa bokk ci yi nga xam ne dafa soob borom bi tabaraka wa mu tëdde noonu ñu di ko tudde sunanu rabbaniya mu di ku def effort ku mën a doon boroom bi ubbil ko buntu buntu wërsëg buntu am am yemul rek ci jullit bi lañ ko jagleel wala yéefar bi lañ ko jagleel ñëpp lañ ko yemal ñëpp lañ yemale foofu doxaliinu sunu borom tabaraka wa taala dafa tëdd ci ne ku sonn ku ñàkk jariñu comme niñ koy waxee ku ñàq jariñu kon bu kenn tàyyeel ku bayliku nag loru ku bayliku loru ku lànk bañ jàpp ci sabab yi nga xam ne ci la ñuy jàpp ngir am wërsëg muy sababu liggéey ak góorgóorlu ku ko def benn danga nga sonn lool ngir ñàkk gu metti wala da nga gaaral sa bopp ci toroxte toroxte weesuwut di dox yor sa kàttan gu mat sëkk dara sikkut ci yow du ci say bët du ci say tànk du ci say loxo ngay wër di yalwaan bu toroxte weesuwu yalwaan nag dafa am yu simple am yoo xam ne yu gën a rëy la ki toog fasul ne liggéey yi xanaa rek di xaar keneen dem liggéey indil ko te dara daru ko ma ne kooku ci toroxte la nekk moom itam kon lislaam doonul diine joo xam ne dafa doon diine ju naan nit ñi ñu toog bañ a liggéey déedéet nit ki ne jóg def effort na liggéey na gëstu ci xel mi ko yàlla jox ak bët yi mu ko jox ak tànk yeeg loxo yee kàttan gi na ko jariñoo liggéey ngir mën a jariñu ci wàllu addunaam kooku mooy tomb bu njëkk tomb ñaareel bi mooy bu liggéeyee ba am na muy dundulee na muy dépensé mu xool ko borom bi tabaraka wa taala joxe na foofu ndénkaani yu am solo liñ bëgg mooy jullit bi bañ ëpp bañ yées moo tax borom bi mu ne wala tubadir tabdiran bul yàq inna almubadirina kaanu ixwaana shayatin yàqkat yi ñi yàq alal nee na ñu seytaane mooy seen mbokk bégloo nañ seytaane ci aw yoonam lañ nekk kon yàq lu mat a wattandiku la buñ xoolee danañ gis lor yu bare bari yu dal askan wi yoo xam ne ci yàq la juddoo borom bi waxaat na ne lekk leen te naan waaye nag bu leen yàq lekkal fàggu nga ba am nga lekkal naanal kenn néewu la dëkkeel xiif guddi ak bëccëg denc alal ji nga yor amul benn njariñ lekkal te naan waaye nag bul yàq borom bi ne wala tajal yadaka maxlulatan ila unuqik bul nay ba lem sa loxo waaye nee na wala tabsutha kull al waaye nee na bul tàllal rek mu dem lu jóg rek nga sànni mu dem jullit bi dañu bëgg mu nekk ci diggante bi nee na boo lemee sa loxo ba nay ba joxewoo woo kooku lor ju rëy sa wàllu diine waaye boo joxee la nga yoroon ba desewoo dara it nee na fa taqauda maluman maxsuura la ngay mujj mooy toog ñu di lay yedd ña doon wër ba nga yoree dara nga di leen ko séddale ba mu jeex ñoo yóbbu di ko naan ah saa waa ji moom daa yoratu la di la di la reetaan di la mokke kon l'islam dafa bëgg nga nekk ci diggante bi moo tax borom bi tabaraka wa taala na fi muy taggee ibadu rahman muy jaamam yi seen melokaan yi dafa wax ne bokk na ca walladina ida anfaqu lam yusrifu ñi nga xam ne bu ñuy dépassé nee na duñ yàq walam yaqturu waaye nee na duñ kor koral itam fekk foo xam ne téeméer fa war a dugg ñu def fa juróom wala fukk nee duñ def noonu wa kaana bayna dalika qawaama kon dañoo nekk ci diggante yàq ak kor koral li ne ci diggante bi mooy lenn lu ne lam yeyoo nga def ko fa bañ ëpp bañ a yées ma ne xawaam boobu suñu borom tabaraka wa taala wax foofu muy ak yamale yam ci digg bi bañ ëpp bañ a yées économie moo xam boobu kër la boroom kër ga na muy natte këram na mu koy yemalee wala économie boo xam ne sax am réew a koy nattale ma ne foofu la mbir ma nekk fa la mbir ma nekk foo gis lor am fa ci koom-koom benn lor jo dafa jóge ci ñàkk a liggéey te jooju lor nun dal nanu lool walla lor joo xam ne ba nga liggéeyee ba am ba noppi da nga wëlbatiku na nga doon joxee teguwul ci aw yoon waaye da nga ko yàq mu dem jooju lor itam buñ xoolee dana gis ne ci suñ askan bi am na ci cër bu rëy rëy rëy boo xam ne yàqal nañu ko nit ñi li ëpp ci ñoom nanguwu ñëw liggéey ci taayal lañu nekk moo tax euh, taxawaaloog njuuj njaaj ak wuruj ak naxeeg li ñu tuddee euh, nit léeg-léeg dañuy dem sax ba ci seen biir yi wax ñu naan xaalis di su ko liggéey des koy lijjanti jàpp ne xëy yor sab saag rek dugg ci marché bi yoruloo benn projet wala liggéey booy def buñ xam lu dul di làqar ci di seet ba gis koo xam ne mën ngaa jot ci la mu yor nax ko ba dem ak moom ñu bari ci loolu la ñuy xëy di liggéey kon loolu du liggéey waxuma la nag ñiy xëy di liggéey ci yeneen yëf yu amul njariñ wax naa ko fii ba tàyyi ay nit ñoo xam ne boo xëyoon fekk lañ yor di ko jaay di ci jënd di ca nax nit ña luy lor askan wi la waaye du lu leen jëriñ ngay dox gis ko lal ay béjjën ay pétaaw ay yëf yoo xam ne kenn xamut lu mu doon ci àdduna dégg ay nit ñoo xam ne la ñuy woo nit ña mooy boo dikkee boo defee nii danaa la defal nangam boo defee àgg ci ba di ko publicité ci rajo yi yoo xam ne yépp boo ko toppatoo xeeti njabar la yeneen yi ci des sax xamuñu njabar far waaye ay naxe la yoo xam ne yóbbu xel nit ñi ñu am yaakaar ci yow dikk jox la lañ yoroon te duñ gis dara ci la ngeen wax la nga leen waxoon yàpp ne ginnaaw mbooloo mi bari na soo naxee kenn te boo liggéey kooku mën naa bañ a dellusi waaye keneen dana ñëwaat réew mi fukki million la balaa mat da dajale ci xaalis loo xam ne dana ëpp fukki million xalaat yooyu lu bari ci ñoom moom la ñuy wax kon ñàkk liggéey mi ngi fi waaye bi fi ñàkk liggéey nekkee ak ñàkk a te fekk ñàkk liggéey googu duñu wax ne dañ leen ñàkk jox liggéey waaye dañoo ñàkk a sawar dañoo tàyyeel dañoo bëgg a am te fekk sonnuñu bi mu fi nekkee ba noppi amos tuuti yàq ko itam mi ngi fi li fi nekk ci xeeti bunt yoo xam ne bunt yàq la muy xew yi nga xam ne moo nekk ci askan wi di dund diggante ngénte yeeg céet yeeg xew yi nga xam ne bu ñëwee lépp fukkariwu lay doon dem ba jaral nit ki sax àgg ci lepp di ko ci def bu jeexee mu yor loxo ki seen toog li nekk foofu ci bunt yàq kenn xamul nu mu toll waxuma nag xew yi nga xam ne dañ ko tudde moom xewi diine yoo xam ne l'islam sax farataalu ko wala santaanewu ko sax far wala da koy tere léeg-léeg ndax boo xoolee même l'islam yi mu digle lu mel ne ay tabaski yoo xam ne bu dikkee nit ki dafa war a rey xar kooku dañoo wax ne su ko mënee soo ko mënul nga xam ne li nga yor sa dund bu waa képp la bul tabaski noonu la lislaam wax waaye nit ki jaral na ko mu dem bay bay lebi ngir tabaski su yemoon foofu mën naa woyof waaye yeneen i xew ñëw yoo xam ne nit ñi ñoo ko tëral seen bopp tudde ko xewi diine xewi diine saa bu ñëwee ñi faagaagal ci jurug réew mi loo xam ne kenn du xam lu muy toll kon nit ñi tayeel gi bu àndee wëlbatiku ànd ak yàq gi mën a yooyu ci li paralyser économie économie bu réew mi muy seen koom-koom loolu ci la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ne yàlla bañ na ñett ñett ngi yoo xam ne yàlla bañ na ko yooyu mu boole ci yàq alal dafa wax ne xiila wa xaal mooy toog rek li ñenn ñi def demoo jaamu ji yàlla wala nga nangoo sonn ci liggéey liggéeyi xanaa rek def ay grand place toog kenn ku ne ah diw de dégg naa ma wax nangam kii ne ko diw nangam la wax diw nangam la wax nga wax wax joo xam ne du jeex tàkk du jeex mukk te jëmul fenn loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla na beneen bi ci des na ma idaatul maal yàq alal alal ji nga fàgg ba noppi nga dugal ko foo xam ne waru faa dugg loolu borom bi tabaraka wa taala bañ na ko nee na wa kasrata suaal ak baril ab laaj laaj bu bari mooy laaj boo xam ne li ngay laaj yow bu dee diine jëfe woo ko bu dee diine jëfe woo ko kooku mooy bari ab laaj laaj kese noonu rek di dem te fekk bëggoo ci jëriñ waxaat na moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne yowmal qiyaam ku yeewoo ci sa bàmmeel ku ne war nga gëm ne ëllëg borom bi tabaraka wa taala dana la taxawal te doo fa jóg lu dul da tontu ay laaj yoo xam ne laaj yooyu bokk na ca nee na sa alal ji foo ko woon kooku mooy question bu njëkk bi foo ko jëlee woon foo ko jëlee woon su boobaa war munta am cër yi ci seen jëmmi bopp ñooy tontu. borom bi ne alyawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kaanu yaksibuun su boobaa cër yi ci seen bopp ñooy taxaw di tontu njuuj njaaj amatul min ayna iktasabahu fan nga ko jëlee boo tontoo laaj boobu ba àggal wa fi anfaqa bi nga ko amee ba noppi ci loo ko def kon mbir la moo xam ne mu aaja seetle mbirum alal lu dangereux la ci dundu jullit bi moo tax lu dugg ci loxoom lu nekk war na caa teey war naa xool fan lay jóge bay dugg su fekkee bunt bi mu bëgg a jaare dikk du booba mu ne ko bul bul ñëw demal soxlawuma la delloo su dee bunt booba mu ne alhamdulilah kaay boo ñëwee ba àggal mu xool yan bunt nga war a dugg saa bu bunt gaaraloo boo xam ne xool na ko xam na ne bii du bunt ba mu tëj booba du fa def alalam ndax xam na ne lii bi a ngi ñëw boo xam ne danañ ko ko laaj fan la jóge woon ak fan la ko def kon mbir ngoog yu mat a bàyyi loolu ay sabab la yoo xam ne benn bu ci nekk nit ki da cee war a góorgóorlu defal ko boppam yeneen yi ci des nag ay melokaan la wala ay pas-pas la yoo xam ne nit ki daf koy sàkk moom la ñuy tuddee al asbaabul maanawiya yi nga xam ne mooy tax nit ki mën a mucc ci eh, ab wala ñàkk bi ci jëkk mooy nga yëg ne fàggu alal dafa am yoon wu ñu koy defee xam ne borom bi tabaraka wa dafa am yoon yum ne lii dafa dagan am yoon yu ne lii daganul kon kii sàkku alal jaadu na mu góor góorgóorlu ba xamee li dagan ak li daganut na wattandiku lépp luy ribaa muy bépp bor boo xam ne def ci teg dara kooku ci riba la bokk na wattandiku li ñuy tuddee al riche loo xam ne na koy jaayee ni nga ko parasante melul noona kooku ci biir riche la dugg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu dikkee fekk kiy jaay euh, ba noppi jël am soow ndekete ndox maa nekk ca suuf alayhi salaatu wasalaam mu dugal baaraamam yëkkati ndox mi topp ko bi mu ko laajee mu ne ko ah asamaan si de moo taw rek ay dox dal ci ndox mi tàbbi ci biir mu ne ko ndax da ngaa mënul woon a fexe ba ndox mi féete kaw ba ku ñëw gis ko daal di ne man rachana fa laysa minna koo xam ne di yaa ngi ne wuruj dinu nax kooku nee na bokkul ci nun kon lu mat a wattandiku la lépp loo xam dafa aju ci wàllu riche muy ak wuruj wala lu aju ci wàllu rëchwa muy corruption lépp loo xam ne lu ci aju la ak lekk lépp loo xam ne alali nit la ci neen loolu lu mat a wattandiku la ak nu mën a demee loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala bi muy soññee naan dem leen fàggu ji it kat néew dem leen rek fàggu comme ni ko ñenn nit ñi defee defe ne alxalaalu ma xalla fil yad lépp lu tàbbi sa loxo rek dagan na du noonu waaye fekk na booy fàggu ji di wuti wërsëg yow jullit la la wutaleeg keneen mooy am na looy bàyyi xel boroom bi ba mu ne fa ida faraxta fansab boo jullee ba noppi demal liggéeyi dafa ne wa ila ko farxab na nga bàyyi xel sa borom de bi mu ne itam famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi dem leen dox ci kaw suuf si te sàkk sa sunu borom tabaraka wa taala daf cee teg ne wa ilayhi nushur bàyyil xel ne foo mën a jëmit na ci sa borom ngay delluwaat da ngay faatu de da ngay dekk itam bi mu waxee itam fa ida qudiyat salaata fantashiru fi lardi wabtagu min fadlillahi la ca tegu daf ne washkuru llaha kathiran laallakum tuflixuun kon bul fàtte yàlla ci yenn jamono yoo ma toll yu nekk jamono yi ngay fàggu alal moo xam da ngaa ne ca bitig ba wala da ngaa ne ca tool ba wala da ngaa ne ca foo mën a nekk ci biir liggéey ba fàttalikul ne am na ku lay contrôler koo xam ne say li ngay fàggu lépp dañ la ci xisaab ëllëg benn nga jëriñu ci wala nga loru ci yàlla na borom bi tabaraka wa taala musul ci loru ci alal ñaareel bi moo di gëm yàlla ak ragal ko borom bi tabaraka wa taala nee na sababus ubbi xéewal ci la bokk moo ne walaw anna ahlul qura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamaai wal ard ñi nga xam ne ah, dañoo dëkk ci dëkk yi su fekkoon fexe nañ ba seenub dëkk ñi jële fa lépp lu dàqoonte ngëm yàlla seenub dëkk ñi dàqoon ñi jële fa lépp loo xam ne dafa dàqoonte ragal yàlla nee suñ fexe woon ba ragal yàlla boole ko ak gëm ko nee na kon danaa wàcce ci ñoom ay barke yoo xam ne day jóge ci kaw asamaan si di wàcc di jóge ci suuf si itam di ball kon loolu lu jullit yi war a bàyyi xel ñoom la yëg ne kat ndekete loo fàggu fàggu ak loo muus muus itam lay tax wërsëg wu barkeel nag moo di fexe ba imaan ak taqwa daje ci nit ñetteel bi moo di jaamu sun borom tabaraka wa ak wéetal ko moo tax borom bi ne fal yaabudu kaaba gi néeg bu màgg la néeg bu nit ñi wër la waaye ñu yëg ne borom néeg bi la ñuy jaamu mu ne nañ jaamu borom néeg bi ndax kooku kat moo leen musal ci ab xiif alladi atamahum min juu wa amanahum min xawf moo leen musal itam ci ak ragal ak njàqare na moo dindi seen njàqare moo dindi seen xiif borom bi tabaraka wa taala ne xoolal dëkk boo xam ne dafa nekkoon ci jàmmam wërsëgam di ñëw nam war a ñëwee di ko jóge nag fu ne waaye ci sababus weddi ci sababus weddi wërsëgu sunu borom tabaraka wa taala wow ci la demee ba borom bi tabaraka wa taala wëlbatiku solal ko mbubbum xiif solal ko mbubbum njàqare kon ñu ne bàyyi diine ji ak woyofal ko ak dellu ci gannaaw ak daw ci alal mooy tax borom bi tabaraka wa taala jékki-jékki wàcc ab xiif ciw nit te duñ ko mën a faj boo xoolee da nga gis ñuy jàng ci wàllu histoire réew mi 1942 euh, at moom mi ñuy wax atum xiif ba at at ya ko jiitu woon bu la mag ñi nettalee la doon xew ci xeeti mbewte da ngay yëg ni xiif booba rek moo leen mën a dal diggante bi nga xamee ne ci lañ doon jël perkaal yeeg palmaan yi muy yëfa gënoon a baax ci xeet yu ñuy sol di ko defar defar ba noppi bënn ko ay bën bën yu mag yoo xam ne loxo da ciy xaj suñ noppee sol ko noonu di génn dem di ko fuukarewoo ñu naan diw jaalu mbaam la diw nangam la xeet yu mel noonu ci la mbewte yooyu lañ nekkoon àgg ci dem ba am nit ñoo xam ne ngir xéewal gu baawaan tax na suñu lekkee bu ñuy raxasu benn parfum bi ñuy tuddee libee moom la ñuy jël nga xam ne bu cher la woon ci jamono yooyu ci lañuy ñuy raxasu gis ñoo xam ne dañuy jënd ay mbàjj yu bees teq lal ko lekk ca ba noppi daal di koy lem jël dem sànni at yi nit ñi doon dund loolu at moomu ñu tudde atum xiif la dafa daal di ñëw dem ba àgg ci da dugg ci ab dëkk menn mbubb moo fa nekk mu ñuy sol kuy tukki moom ngay àbb dem dem ba àgg ci jigéen ñi di woddoo ay saaku saaku yi nga xam dem ba àgg ci nit ñi bu jant xasee soo ba mu lëndam dootuñu sol dara kon xiif ku mel noonu moo daal doon tegu ci seen kaw kon jullit bi war naa yëg ne borom bi tabaraka wa taala bu defee ci yow xéewal war nga am jàqare yi dellu ci suñu borom tabaraka wa taala itam lépp loo xam ne daf lay yàqal eh, sa xéewal boobu nga xam ne ci la sunu borom tabaraka wa ci la la yóbbu bokk na ci itam lii mën a dimbali nit ki ci loolu bam mën a mucc ci lori xiif boobu moo di nangoo muñ nag ndax it jullit bi duñu wax ne kat bu defee nit benn natt du tegu ci kaw mukk natt bi mën naa ñëw xiif mën naa ñëw leneen mën naa ñëw waaye na nga muñ moo tax borom bi tabaraka wa taala wax ne danaa leen nattoo njàqare maanaam alxawf ragal danaa leen nattoo itam ab xiif danaa leen nattoo seeni alal man naa wàññiku seeni bakkan man naa faa jóge mën ngaa faatu wala nga faatule seeni meññet mën naa bañ a baax man waaye yooyu yëpp bu amee wa bashir sabirin su boobaa nag bégalal ñi nga xam ne ñoom ñoo nangoo muñ nga xam ne bu musiba moomu dalee ci seen kaw dellu ci seen boroom xool yam digle ñu di ko def xool yam tere ñu di ko bàyyi kon bu fekkee ne topp nañ boobu danañ gis ne mooy benn xaaj bu njëkk bi aju ci e, wóolul nit ki sàmmal ko koom-koomu àdduna ak yoon yi nga xam ne ci la war a jaare bañ mën koo sàmmal koom-koomu alaxiraam kon mbir mi e, ak góorgóorlu la laaj ci wàllu diine ak góorlu ci liggéey te bàyyi xel sa borom ci lépp loo xam ne yaa ngi koy liggéey wattandiku lépp loo xam ne lu lay yàqal la mu des beneen partie bi nga xam ne moo jëm ci wàllu kóolute nag li ñuy tudde sécurité ni ko borom bi tabaraka wa taala tege ci ay sabab yoo xam ne ca la nit ñi di mën a jaar ngir ñu mën a mucc ci njàqare ci seenu dund loolu danañ ko àggale incha allah ci beneen taxawaay incha allah allahuma inna nasaluka an tubtila kayda aadaai ddin wa an tufariqa shamlahum wa an tuwaffiqa duaat alxaq lima fihi ridaak wa an tuslixa axwaal almuslimina jamian fi kulli makan wa an tajmaca kalimatahum ala alxaq walhuda aynama kaanu wa an takfiyana shara aadaina aynama kaanu innaka jawaadun karim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atbaihi ajmain